di leen siyaar di leen bëgg bu baax a baax tey ñu nekk fi seen émission bi nga xamante ni mooy jàngat làmb jàngat làmb nag suñ ko waxee xel yi dem ci écurie yi ci palmarès su mbëri yi su écurie yi tey nag ma toog fee ki nga xamante ni mooy Baye Djily ñu fas ne waxtaane ko xam naa ni géej ngeen ñu gis maag moom ñu ñu ñu ñu jàkkaarloo fii fas yéene dëgtal li fi am Baye Djily maa ngi lay nuyu. maa lay fay di nuyu képp koo xamante ni euh, suñu mbokk internet ngay seetaan làmb fépp fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi lay nuyu euh, dina la siyaar bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ne ànd nañ ko ci ànd nañ ko wasaare làmb maa lay fay bu baax a baax mais dama la namoon gëj nañoo gisee. <laughs> maa la raw taay da ngeen ma bëgg a jàpp kaaj bu faati baa toogee da dafaa lamb yow boo toogee da dafaa lamb man daal fi mu toll nii père Birahim kese laa lamb père Birahim boobu bu ñëwee sama xol bi sedd. Ah, oh, waaw Baadu li nga gis a tax nga koy dóor fi. père Birahim rek laa lomb père Birahim. damay dégg Fatima toog naa la sama séeri sama séeri sama xol bi day jeex sax. Ah. ndax xam naa ne dóor te ngeen nekkee fii. Oh, ay dóoram la yor oh, moom mooy dóor wala yaay dóor moom mooy dóor. Fatima ah. man xam naa ne sax du mooy dóor. séeri séeri li nga gis yi muy dugal. séeri bi ci écran bi la yem ba. mbaa fi jógee fàtte ko. xam naa séeri Fatima man lay foo xol rek di ma lax ak gars yi tey nag ñu ñëwoon ci équipe bi nga xam ne mooy bëgg sa waajur. bi hmm. nga xamante ne ambulance moo ko jiite. Hmm. mooy te défil bi. Hmm. seen saison bi ñëw nañ ci six combats am quatre victoires deux défaites. noo gisee boobu palmarès combat yi na néewul. six six combats. quatre victoires deux défaites. quatre victoires deux défaites six combats ah daanaka mën naa ne palmarès bu baax la de. bu baax parce que ci saison bu gàtt bi. Euh, nga xam ni saison bi moom bokk na ci saison yoo xamante ne dañ koy nettali ëllëg ci làmb mhm. bu ci écurie defee loolu euh, doon ay xale te écurie ba bokk na ci xale amul xale boo xamante ne jàpp naa ne mun nga faa fayee ko deux millions jëm kaw mhm. ñoom ñu fa nekk ñëpp ay xale lañ kon daanaka mun nga am euh, baax na baax na nag mënoon nañoo gën a gën a góorlu parce que tamit saa su ne rek li ñu war di def mooy gën a góorgóorlu surtout ñoom xale yi nga xamante ne dañoo nekk ci écurie surtout tamit di di am encadrement yoo xamante ni euh, lépp loo xamante ni dalaa lënt ci làmb war nañ la cee mën a dimbali parce que làmb noonu la baaxoo Ouzin làmb dafa am ay secret yoo xamante ni dafa nekk ci biir làmb képp ku dundul làmb munoo koo xam am na secret yoo xamante ni mu ngi nekk ci biir écurie képp ku dundul làmb munoo koo xam président écurie yeeg mbëru mbëru làmb yeeg euh, ñi ŋànk ci écrit bi yëpp ku ci nekk war na mën a am taxawaay boo xamante ni war nañ koo mën a def ci làmb mais mm-hmm. bëgg sa waajur moom dafa doon écrit boo xamante ni tur bi rek euh, yaakaar naa ñëpp ñëpp bëgg nañ ko mm-hmm. parce que àdduna képp koo wax muy takk ngemb aussi objectif am mooy teral ñaari waajuram ci làmb mm-hmm. moo xam muy reporter bi moo xam muy tëggkat bi moo xam muy waykat bi moo xam mbëru làmb ba ci amateur bi nga xamante ne day ñëw di seetaan si làmb sax seen objectif mooy teral seeni waajur tey képp koo xamante ne day jóg naan man de teral sumay ñaari waajur laa laa moo ma fas yéen moo ma tax a jóg ci lépp lu mën te nekk rek danga koy ñaanal suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba loolee mu bëgg yàlla defal ko ci lu kawe njortam parce que yaakaar naa ne àdduna daal loolu dong moo fi nekk mais tur bi moom macha allah neex na. neex na la trop quoi. Mm, mm, mm, ñu ñëw ci li ma koy waxee rek xale yi dañoo liggéey. ndax boo xoolee écurie yi muy bëgg sa waajur taay si nga ah mm. euh, géejawaay maanaam mm. écurie yëpp xale yi doomu ñëw ci bëre mm. am na écurie yëpp amul benn tête de bu ci génn maanaam palmarès bi su ma ko dee tënk dama daan xale yee ko def palmarès bi ci baax xale yee ko liggéey bu xawee gala góos xale yee ko liggéey ba tax na nag fi mu toll nii dama jàpp ne xale yi ñooy wane seen bopp ndax da da nga naan gis écurie ñu ne la Modou moo bëre laay Pythagore mais saison bii ren amul benn tête de boo ciy lim palmarès yi lu mu bari wala lu mu néew xale yee ko def. Mhm. ba tax na nag ambulance ay ambulance mu ko jiite bariwul mais xale yi ñoo ngi wane seen bopp di jéggi mais équipe bi yi nga xam te mooy bëgg sa waajur mhm. dama gis na ñoom seen seen seen làmb dafa limité wu su mu nee dafa limité wu maanaam ñoom ñëpp bii Thiès rek la ñuy mhm. xale yi ñu ciy ñëw Dakar du bari. ba mooy waral loolu. waaw Bas euh, Ousin bari na mbëri yoo xamante ne ñu ngi biir Thiès xam na Thiès. Euh, dafa nekk dëkk boo xamante ni euh, daanaka bokk. dëkk la rëyul dëkk la waaye dëkk la. dëkk la mais rëyul ci ñàkk rëy gi mu ñàkk rëy euh, man bokk ci suma xel bu gàtt jàpp ma ne écurie bu mel ni Thiès war naa mën a am ñaari écurie wala ñetti écurie wala ñeenti écurie. loolu lu ma jaaxal la. waaw parce que loolu tamit gis nañ ko ci écurie bu mel ni écurie Thiès te ñoom ñëpp duñ bëri seen biir te ñoom ñëpp benn lañ. teyit Ousin wolof def na mbooloo mooy doole mhm. ñoom mbër yi fa nekk yëpp bu ñu booloo woon tey def benn entente am entente seen biir ñu ànd wut mag boo xamante ni am na expérience ci làmb indi ko dooleel ko mu xelal leen lépp lu luñ bëgg ci làmb dinañ ko am làmb nag du ay Thiès wala dakaar parce que ñoom en général ñi ci doon bëre yëpp moo du anta bu Thiès ñaata combat la bëre Thiès dafa daan bi mu ñëwee dakaar fii bëri na ay combat yoo xamante ne da cee daan xoolal diggante mag Mamadi Ndiaye stade Demba Diop mu doon combat boo xamante ne combat bu neex la mais xoolal diggante mu Moussa Ndoye bi ko Moussa Ndoye di daan. Mhm. Euh, nga xam ni tey am na ci làmb yoo xamante ni ñu ngi ciy def ay jéego ñu ngi góorgóorlu jëm ci kaw xoolal ambulance combat diggante mag armée xoolal yeneen komba yi nga xamante ni génn na ci mu lay wan ni am na loo xamante ni ñu ngi koy ñu ngi koy. ñu ngi koy ñàkk ci làmb te bàyyiwuñu ci xel. mais est-ce que nekkul li ñuy li li ñuy toog bi Thiès ba fi huit combats. soo ñëwee fi da nga mel ni ku commencé waat à ndax test lay nekk boo ñëwee Dakar. Hmm. mën nga fa nekk nekk ñu jàppale la ba mu mag boo ñëwee dañuy xool jëlee suuf di yéeg te pourtant ba mu mag nga Thiès. Hmm. est que nekk woo ñu woon mën a ñëw fi basé wu def seen liggéey mu jaay yoon. non Ousseyn làmb làmb du Thiès kese. Hmm. làmb du dakaar tamit kese. làmb euh, fi mu toll nii cest à Euh, côté tey fi mu toll nii xam nga ne bu ñu nee département wu Dakar. Mhm. képp ku fi tëggati làmb da nga koy yóbbu arène nationale benn stade lañ mën a tëggee muy arène nationale. Mhm. Iba Mar Diop waroon nañ fa mun di tëgg ñuy dem Iba Mar ñuy dem arène nationale te du yàq ci làmb dara. Mhm. parce que des fois nga gis promoteur bi woote làmb simple kii woote làmb dóor mu nekk lutte avec frappe ak lutte simple. te ku ci nekk amateur yi dañ lay wuyu. Mhm. ku ci nekk da nga am sa public bopp boo xam ni bokkut ak public benn yoon. Mhm. Euh, te ñi ci bari làmb moo leen tax a jóg tey boo xoolee mbëru Cees yi xoolal tey ku ci euh, Bombardier bokk na ci mbër moo xamante ni ma koy nuyu au ci moom laa njëkk déggee mbër moo xamante ni da daan jóge Mbuur bëri si xam naa bu dee am na ci taarix Père Birahim Ndiaye dina ma ko leeral mu mu mu ñu koy gis muy jóge Mbuur di ñëw Dakar di bëri si daan ba mujj gi da daan indi slogan boppam mooy guddi guddi mbuur ñu bari xamoon ko ci moom ba mujjee ñu ci bari dañ daan jóge fu nekk ci dëkk yi ñëw di bëre si Dakar delluwaat ci làmb loolu du dara te Thiès gi oto mun koo daw ci une de temps. Mhm. parce que boo ak APH bi yàlla suñu borom dimbali nañu ba ku jugee Thiès di ñëw même pas trente minutes nga yegg si. te mbëri yi euh, war nañ cee mën a góor góorgóorluwaat bu baax a baax mais pour man écurie Thiès am na yoo xamante ni euh, xale yu manqué nañ ko. war nañ ko mën a defalaat ci seen bopp war nañ ci mën a góorgóorlu parce que ñett mbër fa ñoo xamante ni ñoom ñett rek bu ñu àndoon boole ñëpp ñu doon benn muy ku mel ni euh, Laay Gote euh, Modou Anta ak. Euh, ambulance ñoom ñooñu rek bu ñu gisante woon seen biir parce que làmb fi mu toll ni affaire de gox la. Mhm. ku ci nekk Thiès drapeau Thiès moo leen tax a jóg drapeau Thiès la ñuy présenté drapeau Thiès moo tax. bëgg cees jëm pour dëggal li ngay wax mm-hmm. bu ambulance day bëre mm-hmm. ki nga xamante mooy mooy Modou Anta da koy topp si mm-hmm. laay gore topp si ko yeneen champion yi fa nekkoon Mata Gueye ñëpp seen xol day sot amaana li ngay wax nii suñ ko defoon loolu njàndeem lay nekk drapeau Thiès la parce que drapeau bi ñu yor moom lañ képp kuy bëre ji dañ la koy dénk rek nga dem bëre ji am ndam indiwaat ko biir Thiès ndax ndam li eh, génnu Thiès mais des fois nag loolu bokk na ci Ouzin surtout lu yàq làmb écurie yoo xamante ni bëri nañ du ngeen bëri seen biir ba pare benn gox ngeen bëgg fa am cinq écuries wala dix écuries loolu bokkul ci luy defar làmb te làmb tamit war nañu sóoraale waat bu baax a baax Ouzin mhm. gis nga tey Ouzin sama xarit la kàggu doon xaritam ma bëgg a doon xaritu kàggu day yàq làmb mbëri koo ci gis fi mu toll nii mu ngi créé ay xarit xarit mu ngi mu ngi créé ay xarit parce que xaritoo ci làmb Ouzin <laughs> làmb sport la boo xamante ni ku ci nekk Ousseyn Ousseyn est-ce que xam nga ni euh, tey bëri na ci mag ñi ñoo xamante ni bëri nañ ci seen biir te tey boo leen gisee ñu ngi mel ni euh, ay soow ak suukar. man dama dama lay fàttali mas naa hmm. dégg benn mag mu ne bi mu jëlee avance diw bi diw di ki muy jël avance am di bëre moom. bi muy ngénte ñëw na ci ngénte la lekk ci laax yi lekk ci añ bi mm. te war a ak moom mm. ànd ak moom dañ ñibbi loolu ban mbër moo fan mën a defal fi mu toll nii du am ci làmb fi mu toll baayam xam na li ma xam naa buñ buñ bu ñu tënkee dinañ ko leeral la léegi nga gis ni tey mbër yi ni ñuy xaritoo dafa bari trop mbër yi li ñuy jugee ci écurie dem ci écurie dafa bari trop mbër dangay gis benn écurie am dix benn koñ mais de Barça <laughs> nga bëgg di bëre te dër bi dafa neex Ousseyn bu njëkk xam nga. mais yow lan moo tax nga bëgg dërëm bi ndax gis naa la fan yi yaa ngi fi ànd ay ay ay au ay ay ay. <laughs> booy fay loolu loolu moo tax nga bëgg ànd waa coow yi loolu ah, ah, day indi <laughs> loolu day indi beneen beneen beneen. boo xamante ni fi mu toll nii comme dañuy waxtaan ci écrit bëgg sa ah, waaj loolu xëy na après dinañ ci ñëwaat. Ousseyn làmb dafa am lu koy doxal. Mhm. li koy doxal mooy mbëri di bëri seen biir ku ci nekk di may sa morom xaalis bu ngeen dajee ci bëri simple bu dee mën dama laa mën ma yenu la ba ci kaw dóor ci suuf kenn du joxe drapeau bi ndax poussière bu bari suñ demee ci bëree dóor bi bu dee yaa ma mën dóor ma ma daanu teewul après bu buñ dajee ci koñ bi félicitation bu Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye 2 bëri na ak Libidor Libidor euh, mbokkam yi nga xamante ne ñoom ñëpp ay marier lañ papa yi Serigne Ndiaye 2 ak ñoom ay mbokk lañ papa yi Serigne Ndiaye 2 nee nañ combat bi bu dul woon liñ ko jël ba pare ba mu sori avance bi duñ ko duñ ko bëre parce que ay mbokk lañ làmb xajul foofu mais du dañoo bëri ñoom ñaar ku ci nekk wane jom wane fulla wane fayda Serigne Ndiaye dóor dóor ko mu daanu. bi mu koy woo téléphone bi mu koy woo téléphone sama kanam di waat naan ko bugguma la woon dóor nga daanu yéenewu ma la ko maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax. loolu mooy làmb te bu ëllëgee bu ko làmb boolewaat ak libidoor dañuy bëri waat. dañ koy neexal ba mu neex libidoor bu mënee dóoraat ko mu dóor Serigne mu daan mu dóor ko mu daan muy làmb nag fi ko yi yóbbu Ousseyn làmb yeggut foofu. gars yi dañoo jël làmb teg ko foo xamante ne nañu jàpp ne sport kese la ñaari mbër mun nañoo bokk benn koñ kii di défendre fii kii di défendre fii te bu lu mel ne xoolal chef de mhm. bindu Jurbel ma bindu Thiès ñu daja laale xeex-xeex bu metti bëre ku am drapeau yóbbu làmb loolu la sport la boo xamante ni ku ci nekk war na ci mën a bàyyi xel xaritoo yi bokk na ci li yàq làmb mm-hmm. Mm-hmm. ñu ñëw ci ñi nga xamante ni ni am nañ victoire mm-hmm. ngunda bëri na ci daan alaaji gaynde bëri na ci am ci ndam booy am na ci ndam surtout jogo bëri ci am ci ndam ñu ñëw ci ñi nga xamante ni am nañ ci defet ngunda bëri na ci am ci defet moom tamit ci saison bii nii euh, ñaari yaar bëri na ci tamit am ci defet kii di ambulance moom kenn gis ko ren waaw man nag boo palmarès noo ko jàngatee non ñun euh, Ngunda euh, bëri na ci ñaari combat. Mhm. benn bi mu am ndam. benn mu am défaite. làmb mooy loolu rek làmb moom noonu la léegi nag moom Ngunda li mu war a mën a def mooy mu góor góorgóorluwaat relancer waat ñëwaat ci course bi. Mhm. parce que comme bëri ci benn saison ñaari. deux combats euh, combat bu njëkk bi nga daan deuxième comba bi nga perte xoolal li tax nga perte làmb ji nga ànd ceeg say mbokk ànd ceeg say xarit gën a góor góorgóorlu ci entraînement yi parce que Ouzin mbër mu Euh, lépp lu lay may ndam rek dañ cee di taxaw surtout nga sérieux di tëdd heure di entraînement di di yokk saa su ne boo nekkee rek di yokk expérience boo xamante ni ci làmb amoo ko loolu day jariñ képp koo xamante ni mooy mbër tey euh, tey Balla Gaye 2 wala Modou Lo wala keneen ak keneen li ñu am ci làmb du seen du seen yaafus moo leen ko may seen jom moo leen ko may seen fulla moo leen ko may seen fayda moo leen ko may du du du yàgg ci làmb ngay dégg tey làmb ji amoon vingt quatre heures wala wala soixante douze heures yi suñu papa Mbaye Guèye euh, diw moo ko jël. Hmm. Euh, journée suñu làmb ji nga xamante ne mbapat bi suñu papa bi Birahim jaay tëggoon diw moo ko jël. Euh, mémorial du Bakar Sarr diw moo ko jël. te hmm. ñooñu ñëpp ñuy tudd ay mbër yu mag nañ kon moo lay wan ni làmb mbapat amoon na fi mu toll nii nag léegi mbapat amatul. manqué mbapat amatul parce que xale yi baree baree baree baree. amatul mbappat yi ñu bëgg mooy ñu tëggal la sa koñ boole laak kàggu nga déplacé wu ñëw ngeen gi léegi ay combat nommé lay doom ku ci bëgg bëree mbappat bëgg a màndi bëre da ngay làmb ci làmb séeréer ci mhm. gaal gi wala nga dem adresse wala nga dem yu mel noonu euh, wane fa sa bopp boo duggsee ci arène dafa yomb Ouzin mbër bi la gën a compétir ci làmb ëpp la compétition bu ngeen bëree làmb bu bëree di yow daan parce que li tax mooy saa su ne rek ngemb li day tooy dafay bëri boo nee mbër nga rek yaakaar ci làmb tey xaar benn combat arène mënut a sotti. te gis xale yoo xam te dañuy toog deux ans trois ans def année balance kenn du gis ñu tooyal seen xaftaan benn yoon. loolu dafay métti. su la yàlla jagleel nag nga saison benn saison nga mën ci am ñaari combat da ci war a góorgóorlu bu baax a baax. Mm, mm. mu doon loo xamante ni euh, loolu lañ la ñuy wax équilibre bi nga xamante ni mooy. bëgg sa waajur moom lañ doon waxtaanee bu Thiès euh, ambulance moo nekk ci bopp ba. ñu leen di wax rek ñoom ñëpp ñu gën a góorgóorlu rek parce que làmb moom noonu la saa su ne bu ngeen xëyee di gën di góorgóorlu di gën di yokk ñaan yàlla mbas mi xam naa ne li ko fi dese bareetu wax mbas mi wax dëgg ëllëg nañu sonal nañu trop trop trop euh, bu fi jógee rek bu soobee yàlla namm naa Adrien seen wax namm naa gaal gi namm naa arène nationale xam ni combat Modou Lo Ama Baldé rek <laughs> loolu nag lañ leen indi loolu ma lay jaajëfal bu baax a baax. maa la ko gën a namm fuuf démb maa kàggu dañoo jógee fee dem tournage ma ñëw mën a ko xool fii rek laa namm yàqanti naa làmb ji làmb ji tijji gis ngeen nii leen leen koy defalee ci jàngat làmb mu ànd ceeg Baye Djili suba mu ànd ceeg Fatima grand suba mu ànd ceeg Pay Baye nii leen leen koy fay defalee nooy tàggatoo. di leen jaajëfal bu baax a baax a baax fépp fu waay mën a nekk di kontaan bu baax di leen kontaanee di leen bëggee di leen wax ni dugg nañ ci weeru safar bi Euh, yàlla nañ ci yegg ak jàmm ñu màggali ci jàmm ñëw ci jàmm gàmm ji ci jàmm euh, ñaan yàlla def ci réew mi jàmm ak mboolem réew jullit parce que Sénégal nag jàmm rek lañ baaxoo ñuy jaajëfalaat képp koo xamante ne yaa ngi seetaan Wassare Lamb Ouzin di la jaajëfal. waaye man Ouzin damay màggali. <laughs> <laughs> waaw man damay màggali di leen wax di leen dox dig daje ba beneen yoon ah ci jàngat làmb ak yeneen ak yeneen yi fi am émission bu mag di jàmmaarloo mm. ba ba beneen yoon. jërë ngeen jëf